jaale sa doom bi nga xam ne moom moo génn àdduna jébbal nañ ko borom moom sànq sax alors loo ñu mën a wax ci moom ak lan nga koy ñaanal tey men tan ƴeewa kono jama baabiɓe lan ɓen ka mayde makko yo allah ma moƴƴere janngo yo allah okkoro e Allah hokkoron sutura hokkoron sabu moƴƴo en fof yarnoɗe haa ɗo allah annuno mi yarde onon kadi yarde allah hokkoroyon onon kadi o hokkorimo alhamdulillahi a ah, nga sant dëkkandoo yi rek ñi nga xam ne ñoom ñoo la jàppale man maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo la jàppale wax na ko ba pare. Ah, ah, wax naa ko wax pare. Mm-hmm. yel tan ke waa Ngor e waa Tuuba mhm. e waa Yoof e waa Wakaam mhm. yel tan ke aduna allah on ɗimin lagat mhm. yo allah yoɓu ɓe jordi moƴƴi moƴƴoɗen en fof ha hande allah hokkoranmo moƴƴere jam jarama merci mbo dégg wolof est ce que ɗo yal na yàlla yàlla na ko yàlla yokku njaboot ñëpp tey jii am nañu leneen xar rek ngeen wax weer rek ngeen wax kaay damaa wax njaboot ñi tey métti tuxul rek moo nekk si ñun métti tuxul dañoo ñaan bu ñu yàlla na àggalee ndawam àllaaxira xale bi wax fu dëgg yàlla bu ko tiimu def ka lii sax xam na ne lii ñaaw na lii ñaaw na xale bu tuuti lii ñaaw na waaye ñu ngi ñaan yàlla na àggalee ndawam àllaaxira yàlla na àjjana di këram moom ban bu baax bu yaru. intelligent jàng ba fi mu yaa xam jàngaam ni si zéro. gën foofu yal na ko yàlla yóbbu àjjana ci daw si sama yaay doom tudde même kii xale bi gaañu sax kiñ ko tudde aw waa ngor la xaritu yaayam ñun am nañ lu ñu mitti wante lii neex yàlla rek kenn mënu bu demee lan nga si ah, metti na si ñun metti si waa ngoon ñëpp gis ngeen mbooloo mi waaw ah, ñu dimbali yaayam rek parce yaayam dafa néew doole fii la daan jaaye gerte xale bi di ka jaay xale bi dafa yërëmoon yaayam moo ko daan jaayal guddi bëccëg même jour bi mu gaañoo sax yaayam dama ñëw mu ne ma Adja Lali aji dem na nga xam ne loolu metti na ñu ngi koy ñaanal rek yàlla yóbbu ko àjjana fi gis nga trop ba doom bàyyi la ci biir ka baax a baax yow bu ko bëree yàlla xëy na xëy na àjj yàlla xëy na xëy na àjjana yàlla xëy na xëy na yàlla xëy na àjjana bu baax a baax a baax yàlla xëy na yàlla xëy na teeru yàlla xëy na dafa jàmm yàlla xëy na jàmm ak salaam. salaam nga yow baax yàlla xëy na jàppale bu baax a baax yàlla nit dina trop nit dina nit dina trop tiis na nit ci nag yàlla xëy na yàlla xëy na jàppale bu baax amiin yaa xaw ma racromasel lañ ko dóor xaw ma bal mu nga naa gaare waaye Macky Sall bàyyi na ma kaax yàlla di gaaree ma doom nii yàlla na leen yàlla yàlla nañu yàlla atte ak ñoom ñoo ko dóor racromasel la xaw ma bal blanc xaw ma lañ ko dóor guddi bal nga naa gaare si lundi bi biñ doon dugg si biir dëkk bi di attaqué nit si biir dëkk bi lañ doon attaqué gisuma kenn maa fajal ma boppam ma doog ak waa Ngor ak kii ak sama mag bi ma bokkal benn baay ki ñu doon dóor si terrain bi gàllankoor ko suñu biir kër di ko diri yóbbu ko si koor gi ba léegi mi ngi si prison bi yàlla nañu yàlla àtte ak ñoom. justice justice nañu yàlla àtte a ñoom justice lañ bëgg si réew mi lañ bëgg ma doom ji niñ ko gaaree nii. wallahi lazim du ma leen ko baal parce que alxuraanul karim du ma leen ko baal. nga ci xale ku ne kii gaañu nii man bokk dëkkandoo rek mais man sama doom ju ma jural sama bopp moom lañ ma gaañal tegal ma ko faa sama kër te danoon génn rek xeexul xeexluwul danoon génn rek jëndi gi lu mu reere ñu jàpp ko góor la xam sa camara la tudd ñu jàpp ko 15 ans la ñu jàpp ko dóor ko bu mu bëgg a dee jam ko mi sa kër ga